الأخوي أقصد كلمات الشكر لإخواني من أهل الزاوية على حسن قيامهم وجدية موافقهم كل حين وأوان من أجل نشر دعوة الإسلام ورعاية أمره وإحياء رفع الشأن الطريقه تجارية حسب تعاليم الشيخ الحاج مالك كل ذلك في هذا المسجد المبارك الذي بناه سيد الجليل وذكر الجميل سلالة الأفاضل على بالمعروف بجاه القدر برعنم من سماه سما وذكره نما بل دار الصيت في الأقطار والشعر مناقبه بين وراء دون انتصار إمام الأئمة وميادي الوراء في زمانه وكفي المنيع والغمام الرفيع والسمج أخوان الصنيع شيخ المشايخ في الإيمان والإسلام وحجة الأنام عالم العلماء المتقين وتاج الحكم المتقين الله هو المجتهد ما عفا من العلوم والمجدد من درس من الرسوم وله اليد الطولى في كل فن من الفنون والغاية القصوى والملجأ مأوى مالك زمان الفحوى سيدنا وشيقنا ومربنا وقربتنا وجدنا حاج مالك العثمان ñi آه، leen di nuyu واو nee na ñi ngi leen di nuyu gannaaw ba ñu jullee ci yoon muhammad ne gannaaw sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaam yi nga xam ni ak saxaabaam yi nga xam ni ñooy boroom jubal di boroomi le ñooy boroom jubal di boroomi xamle ñi leen nuyu gën jaa selli nuyoo nee ñu di leen nuyu gën jaa selli nuyoo ak gën jaa yëkkatiku barke ak gën jaa yëkkatiku barke ca waxu yàlla ji mu ni nee ca waxu yàlla ji mu ni ida xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsan min awruduha وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أو ردوها بن لين نيو ني بن لين نيو بن نيو بن نيو موتاخ موني بتحية ني موتاخ موني بتحية السلام رك يم ني السلام رك يم عليكم عليكم فحيوا ني فحيوا بأحسن منها بأحسن منها أو ردوها أو ردوها السلام عليكم السلام عليكم wa rahmatullahi taala taala wa barakaatu wa barakaatu na ngeen ca yegg na ngeen ca yegg ñuy sant yàlla mi nga xam nag ni nee ñuy sant yàlla mi nga xam nag ni gindi nanu gindi nanu ci xéewalu lislaam ci xéewalu lislaam mu feeñal cofeel mu feeñal cofeel ak xaritoo ak xaritoo ci xolu ñooñu way gëm ñëpp ci xolu way gëm ñëpp waaw fa asbaxtum ne fa asbaxtum bi ni'matihi ixwaanan bi ni'matihi ixwaanan luñ ma saan tojante tojantey bopp ne luñ ma saan tojante tojantey bopp ñoom yéeféer yi ñoom yéeféer yi ak di ko noonoo ak di ko noonoo bu ñu bokkee tuub rek bu ñu bokkee tuub xaar di xaritoo daal di xaritoo may nag maa ngi nuyu ñëpp ne mu ni nag maa ngi nuyu ñëpp di ñaan na yàlla ci ñoom di ñaan na yàlla ci ñoom di nuyu sang bu tedd bu màgg ba di nuyu sang bu tedd bu màgg ba di sunu baay di sunu baay Cerno Muntaga Ahmad Taal mun taga Ahmad Taal di nuyu nag mbooleem sëriñ si di nuyu nag mbooleem sëriñ si ak imaam yi ak imaam yi ak muqaddam yi ak muqaddam yi président daayira yi président daayira yi góor ak jigéen ndaw ak mag góor ñu ngi leen di nuyu nuyu gu sell gu teey gu barkeel gu barkeel goo xam ni cofeel akuk bokk ak xorma moo ko ëmb may nuyu kenn ku ne ci turam ak nuyu nag kenn ku ne ci turam ak santam. ñaan yàlla nag di ñaan yàlla. yàlla barkeel. yàlla barkeel. barkeelal nu. barkeelal nu. may nee may profito. di leen ndokkeel. di leen ndokkeel. yéen jullit yépp. yéen jullit yépp. ci ayidul fitri bii ñu génne. ci ayidul fitri bii ñu génne. fan yu néew. fan yu néew. ñu ñaan ci yàlla nag. nee ñuy ñaan ci yàlla. yàlla na ko yàlla delloo si. yàlla na yàlla delloo si loolu. ci mboolem xet yi ne ci mboolem xet wi ak rafetuk dik ak rafetuk dik yeen bokk yi nak ne yeen bokk yi nak ci li ngeen xam yeen ñepp ci li ngeen xam yeen ñepp galankor ne galankor monu galankor ba nuy soga yeksi ne monu galankor ba nuy soga aksi waye du tee nag ñu jaal leen du ñu sang bu tedd ba sang bu tedd ba bu baax ba bu baax ba borom siyasa ba borom siyasa ba ku nooy ka ku nooy ka ku amanteeg ñëpp ku amanteeg ñëpp kuy ñëppi lépp kuy ñëppi lépp xaaja abdul aziz alxaaja abdul aziz si yal na yàlla yokk leeram ne yal na yàlla yokk leeram ñu dajeeg yéen nag tey ci zawiye bi nga xam ni ne ñu dajeeg yéen nag tey ci zawiye bi ngeen xam ni zawiye bu yàlla barkeel la zawiye bu yàlla barkeel la boobu ba léegi nag ne boobu léegi nag may waaj may waaj maag samay rak maag samay rak da ngi ne la ne Abdul Abdul Aziz a ngi ne le sëriñ Babacar a ngi nii sëriñ Babacar Mansour a ngi nii Alxaaji Malick a ngi ne Alxaaji Malick Abdoo ngi nii ak mbooleem ñu ñu ëmb nag ak mbooleem ñu ñu ëmb ñëpp nag ci rakk yi nga xam ne Abdoulaye tuddoon na leen ñëpp ne ci rakk yi nga xam ne Alxaaji Abdul Aziz tuddoon na ñoom ñëpp ak ñi mu tuddul ne ak ñi mu tuddul ñu ànd nag tey jii ñu ànd nag tey jii di leen ziar si di leen ziar si di leen sant si di leen sant si di leen nemmiku si di leen nemmiku si di leen dollee jaal nag di leen dollee jaal nag bàyyi bu tedd boobale bàyyi bu tedd boobale xaaji abdul aziz alxaaji abdul aziz laa zaala inda mawlaahu taala laa zaala inda allahu mawlaahu taala fi ahli tafaduli ladayhi wa tabriz fi ahli tafaduli ladayhi wa tabriz masul lay sax nekk tabriz ne moom alxaaji abdul masul dañ sax nekk tabriz tabriz ne tabriz mën nga nekk jullit mën nga nekk jullit di ku baax di ku baax di ku ñëpp yaakaar di ku ñëpp yaakaar doo nekk tabriz te doo nekk tabriz ñu ni luy tabriz mooy raw sag mooy raw sag maas raw sag maas rek ne raw sag rek teraw sag maas jafe na ah. ne te raw sag maas jafe na raw sag maas raw sag maas ànd ak sa maas ci lépp ànd ak sa maas ci lépp defandoog moom lépp defandoog moom lépp wëlbatiku raw ko wëlbatiku raw ko raw sag maas jafe na ah. ne raw sag maas jafe na alxaaji nag raw na nga maasam alxaaji abdu nag rawoon nag maasam <coughs> ci yëpp nag ne ci yëpp nag abdou aziz wax na ko léegi ne abdou aziz wax na ko léegi ni président ko wax. ni président ko wax. ni boo demee ba ca kaw. ni boo demee ba ca kaw. waay waay na nga wàcc. waay waay na nga wàcc. mën a jëfanteeg nit ñi. mën a jëfanteeg nit ñi. première condition Mouhamad. ne première condition Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. ak Cheikh Ahmed Tidiane. ak Cheikh Ahmed Tidiane. ba mu ko jox yëf yi. ba mu ko jox yëf yi. dafa ne ko d' abord. daf ne ko d' abord. wàcc ba tolloog nit ñi. da ngay wàcc ba tolloog nit ñi. amara nabiyu imaamana bi tanazuli li ifaadil axlaaq bi lu di jëli. boo ne ci kaw. nit nekk ci suuf ngeen bëgg a deeyoo boo yéegul wàccul nu ngeen di deeyoo wàccal yow cheikh ba tolloog nit ñi ma leen jëriñ sama wérdi yu man ma man Muhammad lu tee nag nga dellu moo tax xalifa ni xubayla rujuin lil ali wa a rajiu wàcc na jëfanteeg nit ñi bañ jëriñu ci yàlla ak li ñu bëgg ci yàlla dellu yéegaat nag ca yàlla di leen seetaan xaaj Abdul Aziz it noonu la def boo ko gisoon fii mu ne doo xam ne ni ki may la jàbdu ca woyof ga ak nooy ga ak yaatu ga ak bëgg jëriñ nit ñi ndax ku nekk am na noo ko war a jëriñee ñi da leen di fekki soo ko ba la jëriñ ñi la nga bëgg ñu bëgg ko nga baxoog ñoom moom la fa tabaarakalla mooy Abdul Aziz ak Tibriz mm-hmm. mm-hmm. may nag wàllu jiite cant googule ne mu ni wàllu cant googu le ak ziyaara bokk yi ak ziyaara bokk gi ak ñi teew ñëpp ne ak ñi teew ñëpp ak sunu bàyyi yi ñu lim léegi sëñ Abdou wax na ko ba noppi ne ak sunu bàyyi yi ñu fi limoon léegi sëñ Abdou wax na ko ba noppi bàyyi bi mag ci lébu yi ne bàyyi bi mag ci lébu yi muy mbay binta muy alxaaji góor gi mbay binta pay ak bàyyi bi mag ci zawiya bi léegi ak bàyyi bi mag ci zawiya bi léegi di alxaaji Maxtaar Guèye. ak sunu baay Abbas. ak sunu baay Abbas Guèye. waruma ci dellu waxal na ma ñëpp. waruma ci dellu ndax sëriñ Abdou waxal na ma lépp. kon magi lébu yi nag. nee kon magi lébu yi nag. ab lébu leen nuy si tey. ab moo leen nuy si tey. mu ngi nag bi rek gi rek daje. nee mu ni gi rek daje. daje diine la akuk bokk. daje diine la akuk bok may jël sama cant nag. nee may jël sama cant di ko jiital di ko jiital mbokki zawiya bi nga xam ni ci mbokki zawiya bi nga xam ni boo fi rombee bés bu ne boo fi rombee bu ne muy guddi muy guddi muy xadara muy xadara muy julli njël muy julli njël muy fajar muy fajar muy geneen julli muy geneen julli xam ne alaaji Malik nekkul ci biir ne doo xam ni Seydil Haaj Malik nekkul ci biir doo xam ni Babacar Si nekkul ci biir doo xam ni Babacar Si nekkul ci biir zawiya bi doo xam ni Xaaji Mansour nekkul ci biir zawiya bi doo xam ni Xaaji Mansour nekkul ci biir zawiya bi doo xam ni Alxaaji Abdu nekkul ci biir zawiya bi doo xam ni Alxaaji Abdu nekkul ci biir zawiya bi doo xam ni Alxaaji Habib nekkul ci biir zawiya bi doo xam ni Alxaaji Habib nekkul ci biir zawiya bi ci riir ne ci riir si kar sikkar julli julli ak la war ci wàllu diine ak wàllu yàlla waa nañu Babacar Sy Cheikh Ahmed Tidiane nan la gën a tabee taw ak nan la mën a tawee géej Sëñ Babacar bu dee taw كل شيء بين نيك بدو توي ام دين كاتي بيتي بو توي تا شيرا ماتان بي تاو كاتي بي توي كاتي بيتي توي كون شيخ ماتان بو كتا بي تاو واي شيخ بي تاو كاتي بي توي كاتي بيتي توي تا تاو نك بي تاو كاتي بيتي توي واي كاتي بيتي توي أوا بجر أشبع لوب لو في الأفاق منابرا لا أصبح الناس غرخا أو أشبه ولو منور وبلو في الأفاق ci gox yi mun xam ne di sotti kon laas ba xam mujj naa sa nit ña xaraxaa di way lap fii jënd waaw ngi tabam waaw lan la Cheikh Ambassar gën a tabe nag géej mu ni géej li muy jësiroo mooy wurus te bala ngaa am wurus dangay ngay dugg ci gaal dem ci géej sa bakkan xët doo ko am cheikh li muy joxe dàq wurus mooy leen yaaqutul farida ani salaat al fatiha al majida وفي حقيقة المحمدية أنشأوا ذي الطريقة الفردية يا خطب الفريدة وصورة الوو للشيخ دي جوخي تلو تصن نيوريك لان بسور داغو نيكو ويما طريقة بي نيما يتناق بي تيسي لخو نداغو دي مالجنة كون شيخ موغن انت السلام عليكم ناكو دق فوفو نعم ما قال منصور مديحا وحيي في تلميذ الفؤادي السلام عليكم ماذا كفوف النق بدينا دين الزيارة دين بلوعق دي زيارة قول قلت يدقي دين يقل لني الحاج عبد العزيز لسان باي وخرك ومشي الحاج ما يلجوكي لن كوني ما يسوقو دي دي يوبق ينام بلاتكو إمام ديو ومروي عليه ndax may doomu alpha ma ñoro nangam nangam sama papa ni alaaji Malik lépp lu mu sampoon baaba ko du laaj ba xam dëggal na am dëggalul waaye xaaji Abdou Aziz lépp lu muy def nun de duñ seet ba xam dëggal na am dëggalul dañ cee sotti su ndox kay ndax alaaji Malik du wax lu yàlla waxul du def lu yàlla waxul alaaji ma alaaji Abdou Aziz du wax lu Maodo waxul du wax lu du def lu Maodo deful لول ما غامي ديفنا بابا كاس يالا جي منصور كون لو وخ يالا كو وخ لو ما ديف يالا كو ديف كون لو مو ديف دنج كوي دغرال سامب كو سوخات كو خنا لين سي دولي تاي ماك نيغا خامل نيو بوزاوي بي نيو كو امب نين دي ديسوك نيوم بو باخ سي ليپ لو نين نام دين باي خيل بو باخ تياتل دين ني نك دي جيغلي كا جيلالي مو waaw yaatal dënn yi di jéggale di jéllale xam naa mënulu zeno a bi nag laram ba mënulu ko àgg waaye daal dafa jàmb dafa jégg alxuraan lool mu di ko jàppal mu di ko sottil mu jàpp raxas ñaari loxoom gallax lu ko mu tiit sa léegi ni këng ci bopp bi من وكاذي من الغيظة مم جامبا يلينا ورن المري من كذبت خيذي والناس ممر متي جوال كاوا آه والعافنا عن الناس من عفرت عنك جقلنا على من كو وخلا جل والله يحب المحسنين من كو دفرات غغور غورنا لا غير يالا جقل واي دي جاب سات لا ود ولا بلا مول يران غاني كو جامبل نيكو خب خج ممسلم العابدين جامبل نيكو نيالا نينا والكاذي من خيضة ولا المري مري من كذب تخذي وانا سامر متج والعافر عن الناس نين جيجل نيني من كو جيجل نالا متج ولا يحب المسلمين من كو رنالا تنجري الله جيف يانغوغو كد غاني تنك نيت اب جوليت اپنا خيب مروم جوليتم ndax yalla mo xam fu mu def yefam yu baree bari sax yàlla mi ko rëkk ci ñooñu ñeen naa dañoo doye di déedéet dafa am benn sang am jaamam benn bés sang ba di génn ñu përee mu ànd ak jabar ja ba mu ñibbisi néegu ñax ba nga xam ne ca la jaam ba nekkoon ñu gis ay leer yu soqi ko ci biir néeg bi génn ci biti jëm asamaan jabar ji wokk jëkkër ji di ko xoolal xoolal leer gi ñuy dox ndànk di yoot di yoot fekk jaam bi mu ngi sol yu rafet ni yàlla sama guddi gi ni mu lewee su ko bëccëg bi leewoon doo ko bokk kenn allahu akbar julli ñaara ka sëlmal ni yàlla gis nga guddi gi ni ma lewee damay jaamu jaamu rek guddi gi rek laa moom waaye wóor na ma ne bëccëg bi su ma ko mooma ni moom mi guddi gi yépp laay boole jox la sang bi xool rek ba jant bi bëgg a fenk mu ne nañ dellu fekk jaam bi dafa am muus xam ni di ca def yëre yu sell guddi bu jaamu yàlla bu bëccëgee nag mu xawaay limboo di balee ko def yëpp sang ba nag woo ko ni ah feeñ nga da nga doon nëbbu feeñ nga maa la yërnu ngay jaamu yàlla ñaar rakk yoo sëlmal yàlla guddi gi li ma la su ko bëccëg bi leewoon doo ko bokk kenn te goreel naa la ngir yàlla mu ni yàlla waxoon naa ni bu ma feeñ feeñ naa ashhadu an la ilaha illa allah wa daal di xatti daal di dee waaw moo tax yëf yaa ngi ci yëf yi allahu alama xasiya risalati dimbalante jëlalante bañ a xeebante surtout nag xeebante wala uridu hayatan ba'da ma ma ngoog wala di jeex na kon fa tabarakallahu yàlla xam fa mu def yëfam ñi leen sant bu baax di leen ziara di balu àq nag ndax kër gi déeg bi kenn moomakul yàlla wala al masajida lillah fala tadoo ma allahi ahad di seen place bu baax mu def ko fi muy sunu sawetaas barab bi sunu sawetaas la kon ci suba ba léegi ngeen bàyyi soxla yëpp ak itte yëpp ngir alaaji Malick jar na ko nag ngir Babacar Sy jar na ko ngir alaaji Mansour jar na ko ngir sunu baay bu tedd bi fi jóge barki démb te jógewu fi jar na ko Xaaja Habib jar na ko Cheikh Seydi Mouhamadou Moussa jar na ko ñu may ma ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw ma ñëw dama ne ñooñu ñëpp laa wax ñi ma lim ñëpp yàlla nañ ma wuutu ci yéen dama ne ñi ma lim ñëpp yàlla nañ ma wuutu ci yéen fayal ma leen ku ci am jàngoor yàlla faju te kat dama ma loolu Maodo waxoon وصليا يا إلهي واجزيا أبدا محمد المختار في القدم عنا وأنا xam nga bari na kuy firi wasal yéen ak gisaakum laa naa xayran boo ko firee du la ko wax gisaakum laa naa xayran ak wasal yéen ya ilahi wajziyan abadan muhammadan al fi محمدا المختار في الخدم عنا قام قتي دونو كو فيري مكو ده جمله حال دي جارك مجلول وصل لي جاي لي دونو كو فيري كو دخل واو والله waaw alaaj ah, ah, Moustapha Diop nee na sëñ bañ bokkoon julli barki dem ci Tiwaawan dafa ne wasalli yan yaa ilaahi wajzi yan abadan jar na sax dama ne ana jooju jumlay xaal la musi jasamata mushtaq sifa jaarag majroor masdar taaddu tawkiid alaaji Maalik جارن مجروجة وصليان يالنا دولي خيبل يا إلهي يا يو يالنا وجزيان يالنا فاي يا إلهي يا يو يالنا كوي دولي خيبل كوي فاي محمد محمد كوي محمد المختارة كي يتعلم في القدم جيدة فاك يو يالنا عنا مير موغا نوي ووتو يولي حال بني عنا چلون دفق مصيبة عنا مير موغا نوي ووتو نون جلد يب ووتو نون يب فايل محمد يو يالنا الله جماعي من نكو فاي xamul nu ko fee yow yàlla wutul ñun ñëpp fenn Muhammad waaye Alaaji malik Babacar si abdul Aziz Hadji Mansour Hadji Habib Cheikh Mouhamadou Moussa yéen ñi tax moo leen ba fi wuutu leen ñun ñëpp fayal nu leen tiis yeeg aajo yeeg makka yeeg bor yeeg kër yeeg nangam nangam yeeg ak ak ak ak ak yàlla yëpp faju ومولانا محمد بن عبد الله seydil mursalin wa imaamihim Ceerno nee na bi mu santee yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, allah mu ne mu ngi sant yàlla eɗen ñu ngi sant yàlla ñun ñëpp sabu diinu l'islam ina ɓeydi mu ne ndax diine lislaam mu ngi yokk diine lislaam mu ne ndax diine lislaam dundaat na dundalaat nañ ko diine lislaam mu ne ndax diine lislaam am na force am na doole jama alhaji malik oɗo mu ne mu ne zawiya alhaji malik bi dundaat na tey maayaano ɓeydima wuurtude mu ne deewul woon mais gën na dundaat tey hajen seydil haji abdoulasis radiallahu taala anu kañum wurtintinoo jama o mu ne suñu waajur bi baax bi seydi abdoul asis radiallahu taala anhu moom moo doon dundal zawiya bi o ara ɗo o siftira jeyaɓe allah ɓe o ara ɗo o haaji noon de o waajo jeyaɓe allah ɓe o ara ɗo o haaji noon de o haalano ɓe ko paye allah mu ne daf fi daa ñëw di fàttali nit ñi yàlla di leen xamal yàlla di leen wax yàlla di di dundale seen i xol moom moo fi doon ñëw di leen wax loolu yëpp di leen fàttali yàlla ɗum ɗoon ko hunde addiinde gila si seeɗa babacar sy alkhalifa mawɗo o on ɗon ɗum on allah nawi ɗum alhaji mansour waɗatno ɗum ɓen ɗon allah seydi abdoul asis heddi heddi haaju ne ina wurtina ɗum sahaa fof ina ara ɗo ina wurtina jama o mu ne depuis siñu siñu siñu maam seydi ababacar si moom moo doon dundal mbir mi place bi moom moo ko doon dundal bi mu fi jógee Serigne Abdou Aziz wuutu ko fi di dundal mbir mi di dundal ja jamaa bi di dundal jàkku papam ñanda ñalawma hannde o mu ne bés ni ki tey nag. holli dental ngal. wan na mbooloo mi. holli jamaa o. wan na jamaa bi. wonnooɓe ɗo ɓe ñi fi nekkoon ñi ko ɓe njehii dem nañu rek soko noon ɓe njahaani mais demuñu lomtiiɓe ɓe lomtiiɗo o ku leen remplacé ki haaji no dey ina yoni heen lomtogol doy na si remplacé bi mu leen remplacé wuutu bu mu leen wuuti bi doy na si ina yoni haaji no de mu ne doy na eh, lislaam bi ina yoni haaji no de ɗariqatu tijani o mu ne doy na eh, yoonu suñu yoonu cheikhana ahmada tijani bi waɗi jama o weltiima moo tax tey su jàkk ji mu munoon wax dina wone mbégteem haaji no mu ne mbooloo mu jàkk ji tamit ñoom mun nañu wax ñoom xam nañ ne seen xol mbég bég nañu enen fof eɗen nde nde eɗen ñaagoo mo allah lomtini e haajino nde e yeeso l'islamu o allah lomtiniɓe ɗariigatu tijaani allah ndentiriɓe haajino nde e zawiyaaji allah ji maalik waɗnoo ɗi ɗo allah o ɗacci ɗum ɗo ko juuti so tawi allah ɗacci ɗum ɗo ko juuti en nganndi haajoni l'islam o ko yeeso yarata en nganndi diine o ko yeeso yarata en nganndi haajoni de dental jama o mu ngi ñaan yàlla si biir xolam si xolam la ko tibbee kii ki fi wii wuutu mbooloo mi tey ki fi wuuti ñu fi be ñu fi ñu ñu ñu paase woon ñi mu ngi ñaan yàlla yàlla na ko fi yàlla gën a saxal gën ko dëgëral mu ne daf ko wóor ne su fi saxee su fi dëgëree lislaam bi sax na lislaam bi dëgër na yoonu Ahmad Cheikh Cheikhna Ahmad Tidiane gën na dëgër noon haalajuno de eko haali ko tan e bange l'islam eko haali ko ko seydi alhaji malik haalannoɗo eko ɗo ko ko haali ɗo ko seydi e alhaji mansour haalannoɗo ko ɗum tan woni ko hestitini ko ɗum woni ko haajoni mawnini ɗum ɗon haajoni dey jeyaɓe allah ɓe fof beltima heen eɗen ñaago allah yo allah ɗaccuɗum ɗo ko juuti mu ne lim fi toog li yëpp li mu doon wax li yëpp daf ñu doon fàttali lu alhaji malik doon wax lu seydi abi ababacre doon wax mu ne lu Abdoul Aziz doon wax lu Serigne Mansour Mansour si bu mag doon wax mu ne loolu rek lañ doon fàttali mun na am fàtte woon nañ ko mais fàttali nañ ko tey ñun ñëpp ndax yàlla moo ne fa zakkir fa inna zikra tanfaul muminin fàttali nañu loolu ñoo ñu doon wax ñi yëpp jógewul ci xel yi duggaat na ci xel yi duggaat na ci xol yi ɗum ɗon alaa ko ɓeydo ten heen hay dara ɗum ɗon haajani dey ko haali ko tan yoni eɓaajuuji ɗi yonde mu ne amul dara moom lu mu si yokk ndax li mu fi déglu li yépp wax na lu ñu waroon wax li yépp wax na ko mu ne amul dara lu mu si yokk su dul bég si kontaan si di ñaan yàlla na ko yàlla gën a dëgëral yàlla na ko yàlla na yàlla guddal fanam sona haajoni de ɓeydude heen ko e dow ko haali ko haajoni de o haali innama yamuru masajida allahi man amana billahi wal yawmil akhiri ɗum ɗon haajoni ko allah haalno ɗum kanko haali ɗum e nder haajoni haala e makko ɗum ɗon haajini en mbawa yewtide ɗum ɗon mu ne amul lu muy wax lu dul aaya bi nga waxoon bi innama yu amaru masajid mana mana amana billahi wal yawmil akhir mu ne loolu nga wax moom mooy dëgg jàkk ñi koy dundal mooy ñu gëm yàlla ñi fi nekk ñëpp dañu gëm yàlla mu ne loolu rek la siy teg moom lool bég na si wax jooju ko ɗum wonnoo ɗo e jama o jama o ko guurɗo sa nani haajini yamuru masajid allahi ko jama wiyama no wuuri mm. ko dental ina woni hen dental ngal haajini ngoon jama wiyete ko guurɗo mu ne soo déggee ñu ne jàkk ji dund na mooy jàkk ji nga xam ne am na mbooloo mu takku ñoo xamee ne du dog bës boo ñëwee di nga fa fekk ay nit mu ne jàkk ji wóor na ne jàkk ju dund la heure boo fi ñëwee di nga fa fekk ñu fi ñu koy dundal nit ñi ñooy dundal jàkk noon ko ɗum ɗon tan woni ko wonnoo ɗo en mbawa ɓeydude haydara mu ne loolu lañ fi fekkoon loolu lañ fi fekk loolu lañ fiy bàyyi jàkk ji du du dee mukk ndax ki ko ko sàkk ku ko def ku defar jàkk ji moom mu ngi dund ba tey ɗum ɗon nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam الصلاة مع الجماعة أفضل من صلاة الفجر بسبي ويسرين درجات من يونان تبي صلى الله عليه وسلم نين جولي أغمبولو أبنا كو جولي يو كان نار فك أجروم ناري مرتبة durju ko wiyete durju mune gabba huɓere hajinande ɗo koyngal ma yaɓɓata ɗo e gabbirɗe ɗe henne ɗum wiyete durju oɗo no woni e nogas e jeeɗiɗi ono woni e goho noon juulɗo e dental ina ɓuriɗo juulɗo kañum tan goto fodde martabaji nogas e jeeɗiɗi mune lutax mune durju moy escalier kii mu ngi nekk si première escalier bi kale mu ngi nekk si juróom ñaareelu escalier bi xam ne kale mooy jëkk yegg ku julli kenn nag yow yaa ngi mel ni yaa ngi nekk si première escalier bi kale mu ngi nekk si juróom ñaareelu escalier juróom juróom-ñaareelu escalier bi kooku moo jëkk egg martaba ëpp sa martaba lu toll noonu hadis goɗɗo wi assalaatu ma aljamaati afdalu min salati lfaji bi xamsi wa isrin jus an juulde dental ina ɓuri juulɗo kañum tan gooto geɗe noogas e joyi huunde wootere ɗum geɗe noogas e joyi ɗum gootel oɗo noon juulɗo dental ɓuriɗo juulɗo kañum tan gooto mu ne am na beneen hadis bu wax ne ñaar fukk ak mbir ña ñaar fukk ak juróomi mbir ñu jël ko séddali ko ay nit kii ñu jox ko benn kële ñu jox ko juróom ñaar fukk ak ñeenti mbir kooku ku julli si mbooloo loolu la loolu la ëppee kële e, ku julli kenn ki rek. xadisaaji dee luur daani. mu ne xad ñaari xadis yi nag kii wax ñaar fukk ak juróom ñaar kii wax ñaar fukk ak juróom mu ne amul différence seen diggante. bii do haajino juul e, juulɗoye dental ine ɓuri juulɗo kañum ɗo goto nogas e jeeɗiɗi ko juulɗo e dental tawa dental ngal ko dental jama juulɗo e haaji o ko juulɗo e dental tawi dental ngal wona dental jama ɗum ɗo hadis aji ɗi ɗum mu ak juróom ak ñaar fukk ak juróom ñaari dafa kii julli si mbooloo fekk mbooloo mi du jàkk moom mooy am ñaar fukk juróom ki julli si mbooloo fekk mbooloo mi jàkk la kooku mooy am ñaar fukk ak juróom ñaari ɗum noon juulde e dental haaji no nde ko farilla anduɓe luurdi heen sabu tuugade ma aya qur'ana mo haalinane o haajin aqimu salata wa atu zakata warka'u ma arraki'ina haajin totte asakal totte totte totte asakal juulde e juulooɓe juulde e ko lamru ummiɗo joomiraawo ɗum noon wiyama yoga e anndu ɓe jaari juuldude juulde ko waaji waajibi sunna mu ne ñii firi hadis warka'u ma arrakina kooku amru la kom yàlla dafa ne warka'u ma arrakina amru bu jóge ci yàlla yëpp farilla la ñen ñi neenañu julli ak mbolo julli ci mbolo faril la la ku julli wul ci mbolo amulo amulo julli. waa ñu wone la sallallahu alayhi wasallam hali xaali. mu ne moo yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxna la jar la la laa li jar al masjid illa fi al masjid juulde alana ko koddiiɗo jama sonay der jama mu ne julli amul sa julli du wér wala sa julli du mot koo xamee ne dëkkandoo jàkka nga ko diiɗo jama sona e jama mu ne jul julli du mot walla amuloo julli dëkkandoo jàkk amul julli su julliwul si jàkk ɗum noon haadi o wi waare nelaala sallahu alayhi o wi nelaala sallahu alayhi aɗa anndi min gallam no woɗɗi jama nelaala wima ko goonga o wiyaɗanni min duuɓam keewi nelaala wi ko goonga o wiyaɗanni min haaji noon de e, mi yiyata komi gumɗo nelaala wi ko goonga o wi mbeɗa mbeɗa wawi julde gallam wasano julde den tan cabbakke caggal wi la salal jalil masjid illa fil jasa illa fil masjid nelaala wino aɗa wawi aɗa wawi julde o ummi omo yaaha nelaala noddimo haw ari nelaala wimo beele so tawi noddinama noddinamaga jama ga aɗa aɗa nana o wi mbeɗa nana ɗum woni nelaala sallallahu alayhi wa sallam wi من سمع نداء المؤذن ولم يأتي بالصلاة فلا صلاة له من أن ندنا نودنا ندنا نودنا ونوشتاك نودنا سو جولي ودنياني جولي من أمن am na حديث bi mu صلاة hadis المسجد إلا في المسجد am na benn saxaabi yi bu mag bi ko dégg mais mag la mu ne ñëw si yonent bi ne ko yonent bi xam nga ne man mag laa mu ne ko dëgg la mu ne ko xam nga ne duma ma gis mu ne ko dëgg la xam nga ne sama kër sori na jàkk ji mu ne ko dëgg la mu ne est-ce que mun naa julli sama kër mu ne ko waaw mun nga julli muy dem bay dem yonent bi ne ko laa salaata wonuduma aɗa mu ñëw mu ne ko man sami a nida al muaddin walam yaati bisalati mu ne ko même ndax suñu noddee dinga nga dégg nodde bi mu ne ko aha dinaa ko dégg hadis o bi nekk képp ku dégg noddu kuy nodde soo ñëwul wuyiti nodde bi amuloo julli noon faccitoroɓe hadis ɓe mbi wonde wone mu ne lu yonent bi wax la salata lahum way julli bi yàqu na rek amul julli goɗɗo mbi ala juulde nde bonani soko noon ene e-, e ende manquine timmani mu ne ñeneen ñi nee nañu la salata lahu wax bi mooy julli ji am na wante motul dafa manqué noon ala hen ko jiɗɗen jiɗɗen ko ne ñun nag amul len luñ si bëgg bëgguñu lu manqué bëgguñu lu amul dañu bëgg a juul julli ju mot kon nag nañuy julli si jàkk yi ɗum de woni chaairul من من رأتم ملازم في المساجد فاشهدوا بالليمان الكامل كلام يوم من جيلنا إلى نيبة دنت الجماعة شيرون ديدم لما ناقل تمغل إن وني مودم قال وني لما ناقل نلال صلى جوم راوي إنما يوم المساجد مساجد لمن آمن بالله واليوم الآخر من سرين بي وحنا كو سانك نينا كيب كو ngeen gis mu sax ci jakk sédal len ko koku julit bu wër la mu ne nag liman liman liman bu mot mu ngi ci mom kon nag euh, li mu am na moyens yi bëri na moo tax ñu bëri di aji mais bu mu jafee tij taalibe tijaan yi rek ñoo doon aji moo tax nag loolu moom doy nañu ñun. Cheikh Umar Ndiaye Cheikh Umar Ndiaye koy daa ñett yi. mu ne ñoom Cheikh tànk la ñu demee ba egg foofu.